waaw salaamaaleykum ami internet de la TMS TV ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay waay bëri di leen ñaanal jàmm di njëkkee ci nuyoo bi ci sunu sëriñ sunu wasila sunu yaakaaru teg ëllëg ginnaaw yàlla ak yonent bi Alaaji Thierno Moule Sow le roi de la médecine traditionnelle du monde the king of all the king macha allah ñu ngi passé ci signature euh, contrat contrat de consultation macha allah ñu fas yéene waxtaan ak yaayam rek salaamaaleykum mère. maa ngi lay fay. baa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm. ça alhamdulilah. waaw ñu ngi lay dalal ci euh, clinique Darou Lahi bu El Hadj Thierno Moule Sow. waaw ñu fas yéene leen présenter li nga xamante ni moom mooy contrat de consultation bi. waaw bi mooy contrat simple bi nag. waaw nit ki bu ñëwee. bu ko sëriñ bi xoolalee. li nekk ci moom mën na yëngatu. moo xam rab bu ne ci moom wala jinne bu ne ci moom wala dëmm bi ne ci moom. kon xam nga comme sa doom ni muy def nii rek xam nga ni sa doom deful nii am na lu nekk ci moom lu koy defloo lii nii waaw Euh, séance bii nii dañ koy filmer bu ñu ko filmer dañ koy dugal suñu chaîne YouTube muy TMS TV moom mooy contrat simple bii nii am na beneen bi nga xamante nag moom mooy contrat VIP boobu consultation bi 200000 la waaye nit ki bu daanoo comme nii kenn du ko filmer waaw est-ce que d'accord nga ci contrat bii nii wala. sama dëkkandoo bii maa ngi dëkk Kër Mbaye Fall moom affaire bi bi mu koy commencé mu ngi ko commencé woon di ko def en gym ay dënn yi metti ay estomac yooyu daal la ko dikke woon. bi mu ko dikkee yooyu nag man tamit xam nga rek xaw ma si man gëwuma woon yi sax ma di ko yóbbu ma di ko yóbbu hôpital di ko yóbbu hôpital di jënd ay di yóbbu consultation di jënd ay garab lu nekk ma koy jënd dëgg yàlla saa bu ne dara daf may metti ma jël ko yóbbu hôpital su ma ko yóbbu hôpital jënd fexe ñu jënd garab yi ba garab bii ñu mujj jënd nii barka démb nii bu estomac bi kii sama tontoo bi moo ko jënd sama dëkkandoo bu baax la xale bi yàlla def mu bëggal ko boppam rek sonna si moom loolu nag wax dëgg neex yàlla xale bi jàngam yàqu woon na ren sax ba école yi ñu ko yóbbu dañ ne carrément duñ ko jël pour mu jàng mais yàlla def na moom mii mu ne rek xale bi day àggali avenir ndax xale bi gis na ne bëgg naa jàng te ñoo dëkk mu dem fay inscrire ko école bi mu ko inscrire école si moom mii si dëkkandoo rek yàlla tamit laa kay bàyyeel mu inscrire ko bi mu ko inscrire benn école fay te xale bi daawul fay école inscription bi 30 000 chaque weer 12 fi mu ne def naka yëpp ba xale baa ngi commencé jàng waaye xale bi daal premier jour bi mu commencé jàng muy àjju muy jour bi ñu ko inscrit àjju ma yàlla dogal mu dem affaire yi jékki-jékki rek seen waa ñu oo ma biñ ma woowee ma jël ka si laa ko oowee moom ndeysaan expliqué ko mu daal di daal di ma ne léegi xaaral ma ma am fu ma la yebal waaye fi mu ñu yebal bu ñu demee dinañ moom bu ñu waree dem foofu bu ñu waree dem foofu noonu dina am calmant moom mii dootul defati dara day mel ni ku ko xam léegi bu ñu demee tamit ba ñu mocce ñu ba pare day day day day day day tane carrément mais bu ñu ñëwee si kër gi dina ba ma jox ko ba ñu lekk ba pare wala dara ba mu xam ne dafa war a jàngiwaat affaire da koy commencé waat te bu koy dugg si tànk yi la koy duggee di ko def genre genre liw genre genre kii genre manta si yaram bi noonu la koy dikke daal waaw ah tonton bi tamit li tax man dëgg yàlla mënuma kaa fay parce que papa mu ngi dunda papa ma ngi fii bari ñi ba sànq biñ laa ñëw woo nañ ko mais xam nga rek moom dafa taxawu palaasu papa daal daka palaasu jarbaat palaasu sët sonn na si lool. waaw léegi nag fi mu nekk nii man lii mësuma kaa gëm dama daan dugg si YouTube bi di seetaan di dugg li ne di seetaan mais mësumaa gëm lii mais liñ naan rek lu la dalu rek doo ko doo ko doo ko xam mu la lu la dalu rek doo ko gëm waaye sànq ñu ñu dem rendez-vous ba ñëw bi ñu demee rendez-vous ba ñëw rek yàlla def ba ñu toog maa sama xarit bii rek. ñu toog ba mu yàgg mu daal di dawe si biti rek daal di ñëw ne yaay sama tànk yi daa amee luy manta ma ne ko manta mu ne ma waaw ma ne ah Kumba Gueye daal loolu xam naa karo yi la affaire yooyu mu daal di génn bi mu génnee ma toog di wax ak ba mu yàgg rek mu daal di yuuxu ñu daw génn rek mu daal di tasee ñu si bunt bi songañu ne ne affaire baa ngi nii mu ne daal lu ruus lay def sol lu weex toog waaw moom nag nee na du bàyyi xale bi du ma ko bàyyi nee du agsi nga nag agsi nga kër la xalif général day waaw ah, ak si nga kër the king of all the king lépp dina leer incha allah bu ñu yéegee ci kaw waaw. Ah. ñu ngi nii fii ñu ngi fii euh, jàmmalaay sama dëkkandoo bi moo ñu indi pour ñu liggéey man dama jaaxle sax parce que dama commencé woon ay di jaay liggéey mais fi mu ne sama lépp dafa tardé sama lépp dafa yaaxoo mënatumaa jaay mënatumaa def dara waaw affaire daal dépassé ma torop torop torop wa dëgg yàlla man lii ma suma kaa xam xalaatuma ko woon. waaw incha allah léegi dañuy passé ci signature contrat comme que wax naa la lépp li nga xamante ni moom moo ne ci contrat consultation simple bi léegi liiral naa la ba nga dégg que ba nga joxe sa consentement nga ni d'accord nga léegi dangay ngay signé fii nii. bu ko signé. fi ma daal yóbbu may calmé foofu laa bëgg. bëgguma fii. waaw léegi comme que signé nañu contrat bi léegi après ñu dem ci sëriñ bi macha allah bu ko defee mu xool ko macha allah. jéggalu ziar mm. maa ngi jéggal bu baax a baax. salaamaaleykum tegal ma sóor gi. kon dama jaaxle kat soxna. salaamaaleykum maaleykum salaam. Sow. Maroon. waaw yéen it jaam. ñu ngi jàpp bu baax a baax. macha allah. jaama rek kay. xanaa noo boo kii la tëye nga bàyyi xale bi. bàyyi ma xale bi. nomal kooku nga bàyyi xale bi yow tamit jigéen bu ñu doy jigéen sonal nga xale bi de. waaw mos na kaa laa de kan lay wax noonu. yow. xas na la ka de loolu lay wax nag. yow ñun dañ lay xeex ñun dañ la di ñu bàyyi. fii la doon bañ a ñëw. kon fi ma daan yóbbu may calme laa bëgg. ah déedéet foofu baaxul kon doo bàyyi sama doom. foofu laa kon sama doom du jàng. sama na jàng mi. Ah. ren nga waroon ren nga. dañ ko kala kala bay ma. doo sama yaay. bu dee ma fi ngeen ma yóbbu ngeen bañ. bàyyi ko demal fee demal si buntu bàyyi Cheikh waa taxawal noonu. waaw mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm la xalif général des djinne le roi médecine traditionnelle du monde le king of the king le roi des djinne ba bàyyi ko baa cheikh yow la kan waxuma eh, yow la kan. xaw ma ko bàyyi ma eh bu ma laal bàyyi la kan yow la kan bàyyi ko yow la kan. eh yow la kan. yow la kan yow la kan yow la eh, la kan. yow la kan c'est qui fawfawlu funnaange amaru yaw hirnaange inna allaha anna allaha billi baadi bashiran jinna monokoɓi tolotege talatege allahn kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndejjidi kidankol jinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allah wonande allah saginande allah hulu allah samadu gis nga doole bu mu àndal hmm? ngeen doole bu àndal hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batinu kurjinna sojinna uldi koro yanna nabi yanna nabi ndure durete sojinna so sojinna kiisi kaasa samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi samaruhusi samsi samaruhusi samsi samaruhusi samsi samaruhusi samsi samaruhusi jina jina samsi samaruhusi samaruhusi samaruhusi samaruhusi samsi samaruhusi samsi samaruhusi samaruhusi samaruhusi samsi Samaruzi, Samsi, Samaruzi, Samsi, Samaruzi, Samsi, Samaruzi, Samsi, Samaruzi, Samsi, Samaruzi, Samsi, Samaruzi, Jina, Samsi, Samaruzi, Samsi, Samaruzi, Samaruzi, Samaruzi, Jina, Samsi, Samaruzi. Ah? yi moom mooy yaayam xanaa xale bi jàng rek la bëgg ren la war a def la war a examen xaw ma CM ren la waroon def CM waaye xale bi suba ngoon mu ngi jàng dama mun a day reewe jàng yaay dama bëgg jàng teral la teral sama papa lu rek la dëkkee man xale moom rek la am si doom muy jàng mm. xale bi sama xarit la sama doomi xol la sama magam sa da daan moom rek laa gën a bëgg sama yaakaar ji naroon na tas rek laay jooy dégg loolu waajuram bu jigéen mooy jooy noonu saam si samaru saam Samarusi Samsi Samarusi Samsi Samarusi Samarusi Samarusi Samarusi Samsi Samarusi Samarusi Samarusi Samarusi jinna ñi ay sécurité mu lay lañu Samsi Samarusi Samarusi Samarusi Samsi Samarusi Samarusi Samarusi Samarusi Samarusi saamsi sama ruusi saamsi sama ruusi sama ruusi sama ruusi sama ruusi sama ruusi sama ruusi jinna ataake aprose aprose aprose aprose aprose aprose monoko bi tolo teke faalaate ge allah kan tan annabi kan tan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiti kidon kon poloya saya wonande allah saginande allah wonande allah saginande allah hulu allah samado hulu allah samad alfayi diayn alfayi batin kurjenna sojinna oldi koroyanna nabi yanna nabi ndure ndurete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi samarusi samarusi samsi samarusi kenan samsi samarusi kenan samsi samarusi kenan samsi samarusi kenan samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi kenan kenan kenan kenan kenan kenan kenan ragaloo ma. waaw. Hmm. waaw man ragaluma la faalewu la. tu <laughs> m'as fait rire mbokk yi nee na ragaluma la faalewuma la loolu la wax <clears throat> nga ne. ah. nga ne. bandi la. lu tax nga wax bandi la. damaa xam ne li ko dugg bandi la. lu tax nga wax loolu. ma koo xam rek ndax. léegi bandi boobu laa bëgg a xam lan moo. ndax dama xam ne li ko dugg dañuy nax chaque jour dañuy nax. dafa am foo leen ko doon yóbbu wala. ko doon yóbbu fu ne fuñ ko yóbbu ñu def ko ay calme. moo ma gënal fi ngeen ma andi. nga ne. fiñ ma doon yóbbu moo andi. lu tax yow da ngaa bon ñun rek nga laa bañ. waaw. moo tax ma bañ leen. dañ ñu lu tax ma bañ leen. nee na ñoom jinne rek laa bañ. <clears throat> mbokk yi gis ngeen lan moo tax ma bañ leen. dañ ñu bañ. yow la kan. waaw ma ko. c'est qui. yow la kan. nga ne dama leen bañ. lu tax nga ne dama leen bañ. ñu lu tax nga wax loolu. si ku nekk nga jëlee fa. waaw léegi après. <clears throat> kii kañ nga ko topp. maa ngi ko topp depuis daaw. depuis daaw. foo ko toppee. maa ngi ko toppee woon seen école si toilette. Ah, seen école ci toilette. waaw ban melukaan nga yor. maa nekkoon paa bi sol lu weex nekk sama doom mu ne ma duul. ah da ngaa nekkoon paa. waaw. ñëw ba ci toilette yi yàgg topp. Ah, kon jinne bi nit la woon maanaam da ngaa soppale nekk paa bu màgget. nga ne ko sama doom. mu ne la. duul. après nga def ko nan. ma dem dugg ko parce que dama ko bëgg. danga nga koo bëgg. waaw. lan ak lan nga ko yàqal. maa ko yàqal entrée en waaw te dafa yaru maa tax bu yaa waxee du dégg. ak muy lettu mees di def lu nekk. waaw. ak lan nga ko yàqal kon yow paa bu màgget nga. man duma paa bu màgget. Mhm. lan nga jigéen dëgg laa. Ah, jigéen nga. léegi lu tax nga nekk jigéen mu nekk jigéen nga dugg ko. parce que dama kaa bëgg def sama doom. danga ko bëgg a doomoo. mais yow da nga ko bëgg a def doom mais lu tax nga yàqal ko ba uh, kii yëpp ba fenn. maa yàqal parce que dama kaa bëgg nangu si yaayam. da ko bëgg a nangu ci yaayam. ak lan nga ko yàqal. li ma ko yàqal bëri na. lan ak lan la. maa ko yàqal jàngam. waaw waaw. maa tax ay mbokkam bu ñu waxee du dégg. ak lan. li ma ko yàqal bëri na du loolu kase. Mhm. waaw. Mm. waaw ba tey ñoo ngi ci consultation bi duggaguñu ci faj bi ñoo ngi ci consultation filmé <clears throat> ndax fii ñaari contrat la am na contrat bi nga xamante ne du ñu filmé am na bu ñuy filmé ñoom nag boobu lañu ñu d'accord gis ngeen jinne bi dafa am doole gis ngeen nu mu nu mu def ak sama sécurité yi Baye euh, Baye Fall Baye Cheikh dafa am doole gis ngeen ko dafa xam nga xale bi amul doole xale bi amul doole waaye jinne bi mu àndal moo am doole wàccoon nañ sax nag wax dëgg yàlla far ñu woo ñu ñu ne ñu ñoo ngi ñëw waaye wàccoon nañ léegi gis ngeen jinne bi nee na jigéen la nee na mais dafa ku nekk paa ci toilette yi la ko duggee <coughs> léegi nag ba tey ñoo ngi ci consultation bi dégg ngeen jinne bu soxor la aussi bu am doole yow da ko bëgg a def doom boo ko defee doom après lan la. xanaa sama doom. yoo doom. aw ma doom. amoo njaboot. aw ma njaboot. lu tax amoo doom. moo ma neex. kon yow voyu nga daal. waaw. Hmm. léegi yaayu xale bi moo ngi jooy lan nga wax ci yaayam. waxuma si dara. dara. waaw euh, ku baax na nga def. yaa ngi ci jàmm. ne da ngeen fekk sax ñu wàcc ok léegi dama bëgg nga expliquer ñu tuuti parce que yow yaa ànd ak ñoom fii nga wax ñu après ñu continuer déjà ñu ngi ci séance consultation bi. Hmm? man euh, ñi ay samay dëkkandoo lañu vraiment bi ma gisee bi ma gisee dañu tase nii par hasard rek mu jàmbat ma xele bi situation xele bi nee na dafa war a jàng dañu jàng te affaire bi da ko topp da yàqal ko jàng. donc sama dëkkandoo la ñu ma ma xam ne ñoom amuñu doole alors ma te dëkkandoo euh, vraiment euh, euh, ñi ngay jàppale ñeneen ñi nekk ci biti sa dekkandoo nga war a jàppale man idéologie boobu laa yor te man yàlla def na yàlla def may nattu ci politique bi encore ati vraiment looloo tax sax sama kii xaw tuuti ci gox bi ma dëkk léegi nag am ko xamante ne sax demu daawoon nañ fa dem ba affaire bi calmé di kalme mais finalement daal affaire bi dafa mel ne euh, day gën a yokku. waaw di calmer mais mais mais góor gi Sow nga baal ma ah, man yàgg naa yàgg naa la suivre ci ci ci ci ci télé bi. mais vraiment vraiment man euh, kii woon naa sax mais moom ci boppam xele bi moom ci boppam moo ñu orienté ah. jinne bi jinne bi moo ñu orienté mu mu dafa tudd sa tour nee na mu saaga la mu ne kooku am na ku mu jàppoon ah. am na ku ma jàppoon mais kooku moo ma lakk moo tax ma bay ko waaye foofu bu leen ma fa yóbbu moo wax loolu de moo orienté moo wax sa tour de yàlla xam na ko. jinne bi moo orienté fii waaw moo ñu orienté bi mu ne am tu tu mu tudd tur xamul sax lu ko wax loo photo tir dafa ne. waaw. waaw. non déglu ma terminé laisse laisse ma terminé parce que li gën a tax ma ne yaay am kaay kaay ñu yóbbu ko foofu parce que eh, dafa tuddu sa tur. tudd sama dafa tudd sa tur moom jinne bi eh. jinne bi ne eh, eh, bi ma jàppee diw. kooku kooku moo ma lakk saay saay boobu moo ma lakk mais ku bon la. Ah, man la wax waaw waaw mu ne moo ma lakk waaye bu leen ma yóbbu foofu. yóbbu leen ma yoof waaw commencé di la saaga. Hmm. ci laa ne pat yaayam yéeg leen yéeg leen affaire bi foofu la nekk. waaw yàlla xam na ko. mais yàgg naa la si biir quand waaw est-ce que affaire yi gëmoon nga ko. non gëm kaar gaa gëm naa ko parce que man xam nga man. Mm-hmm. Euh, man dama dama nangu. dama nangu parce que man euh, man séeréer laa nga baal ma ci kaddu gi man man sama maam coddo la. ñun euh, rab xam nañ ko bu baax. waaw ñu lii du du bulet. du bulet. kii fay rab. man am naa am naa sama ñaari maam yoo xamante ne. Ah, dañu doon faj ki ki ki ki rab jàpp. Mm. dañ lay entraîné boo nga boo nga boo nga boo nga weer moom ci boppam mu ne la demal nga ñibbi nga indil ma xaalis bi du du fayeku dara kooku sama maam la woon ji jamono yooyu mu ngi dëkkee côté ñaaxar ah, dëkk bu ñuy wax kobo sikil waaw ñu di ko di ko wax ah, mbañik kooku eh, gaañu na mais kooku ay ay ay ñu mel ne rek la daan faj boo ñëwee mu comme nii mu ne bay leen ko tekki leen ko bu ñu ko tekkee mu ne dem leen ñibbi waaw dem leen ñibbi mais daf koy faj faj ba mu weer mu ne ko demal nga ñibbi nga indil ma xaalis bi mm-hmm. mbañeek sama maam boobu noonu la doon faje waaw donc mm-hmm. yow li nga li nga wax ni mm-hmm. li nga wax ni man def sa confirmer ne yow mbirum yàlla la parce que yàlla day séddale yàlla lii la yàlla jox da ko séddale comprendre nga man il faut ñu nangul la loolu jërëjëf Sow merci soxna si waaw yaa sànq. waaw. foog ngeen kii bi ñu demee foofu ñu ñu. am fu ngeen ko daan yóbbu. man mosuma ko yóbbu fen affaire bi daal. enzyme la ko daan dikke ay enzyme ay ay kii estomac. jàppaween yi man tamit su ma ko jàmbatee rek bëgg jàng ne même yenn saa sax affaire bi da koy jàpp mais su ma ko joxee garab ba mu calmer rek day forcer dem jàngi. Hmm. waaye man daal ma dem dema dem ba hôpital dama dem a dem ba sonn. dégg nga léegi nag moom mii mu ne ma euh, affaire yi comme moom dafay yekki bu koy digg day day def yaram bi safara comme comme mante daal muy lox te si tànk yi lay jaare te moom bu ñu ñu toogee moom rek moo koy gis day daf may xóot am na sama yére boo xam ne démb da ko xotti yëpp daf waaw da koy xóot dafay xotti yére yëpp waaw waaw léegi nag man tamit bi ñu koy yóbbu foofu dégg nga ko si wax ji nee na foofu moo ko gën a ndax kooku nee na mënalu ko dara mënalu ko dara nee na kooku da kay calmer léegi nag moom bi ñuy wax bi sànq bi affaire bi bi ñu demee foofu rendez-vous si 1 heure ba ñëw ñu daal di toog dañu dem rendez-vous ba ñëw ba añ ba pare bu ñu añee pare ba fekk kii jaar ñëw ñu toog di waxtaan moom xii xaritam la sama xarit mais daf ko bëggal boppam ñu daal toog di waxtaan ba mu yàgg mu génn si biti rek daal dawaat ñu fekk ñu si néeg bi ñuy waxtaan rek mu daan ne yaay sama tànk yi de am na lu siy dox ma ne ko ah mu ne ma waa mu ne dafa diskan ma ne ko ah lii xam naa karo yi la rek karo yi la rek bi ma ko nee karo yi la rek après si laa daa di génnewaat si biti toog ba mu yàgg rek ñu dégg mu yuuxu ñu génne mais bi ñu génnee man su ma ko nee man maay sa yaay sax dana man xaw ma la man aw ma ndey aw ma baay waaw kii xam ne moom xaritam la ndeysaan ba démb rek la ko jëndal banaana lu nekk la koy defal mooy ki ko dugal école bi yëpp inscription yëpp waaye xàmmeew ko sax amul xas na ka wala wax na ka. man euh, dëgg yàlla si si sama téléphone. bi la suivre lu baree baree bari. nit ñaan rek lu la dalul doo ko xam. jaboot jamono yu ma daan suivre est-ce que gëmoon ñu doon def ak gëm naa la gëm naa la ndax man bu ma lay suivre sama téléphone dama lay suivre ba sa paas lay dugg su ma duggee sa paas damay lii mais affaire bi bi mu bi mu commencé garaaw nii dafa mel ni dañ fil sama xel man daan naa suivre lu bari mais xaw ma ne sax côté bii nga dëkk. mais da affaire bi bi mu commencé sonal xale bi dama jaxasoo sama xel dafa lañ ja fàtte naa sa surtout ndax ma ne ma bi ma daan siiba dama naa kii sama doom bàyyi la waaw xale bi nag dëgërul bopp wax na ko sànqa dëgërul bopp mais lépp moo ko koy defloo jàng rek la bëgg ba si suba bi ñu demee rendez-vous ba ñëw jàngami jooy nag ko ba sonn waaw. léegi ngeen kan moo fexe ba ngeen indi ko fi. Euh, sànq bi ko affaire bi yënga bi affaire bi waatee ni si ngoon sama dëkkandoo yi si suuf man maa ngi si kaw sama dëkkandoo yi si suuf ñoo dégg yuuxi daa daw ñëw bi ñu ñëwee après ma oo tonton tonton bi ñëw bi mu ñëwee ñuy waxtaan ñuy seet solution fu ñu koy yóbbuwaat ndax man tamit si sama xel bëgguma woon xam nga moom comme moo may yóbbu foofu bëgguma woon a jéggi yoon mais sama xel xalaatoon na ne tamit kii daal dafa mel ni affaire bi dese na kaa kii dafa dëgër bopp affaire bi dafa dëgër bopp waaw léegi nag sama ndaw si dëkkandool moo jékki-jékki rek daal di tudd sa tur tuddee sa tur mu ne ah mu rek mu yuuxu mer ne kooku kooku bon kooku commencé la xas waaw après nag moom man li kat ñi ma jaaxal moom dañuy dugg a côté bii rek mu daal di commencé fi taxu si oto bi waaw mu ne xoolal man xam naa leen xam xam naa fi waa xamoon naa fi ngeen ma yóbbu waaw affaire bi daal doy na waar daal doy na waar daal doy na waar torop tabare daf ñu doon nax naan kii maamam la bëgg ngeen yóbbu ko yoof sama yaay yoof la dëkk mu naan dafa bëgg ngeen yóbbu ko si maamam ndax moom xolu ma maamam maamam maamam la la bëgg ak yow ak yaayam waaw léegi boo leen ko yóbboo si maamam ba mu gis ko rek ma dinaa ko bàyyi ndekete daf ñuy jéem a nax moom daal saay saay la daal waaw. léegi kon dégg ngeen lu yaayam wax ak. trop parce que dëgg yàlla moom laa sama xel man ko xalaatuma woon ni dinaa ma sa teg sama tànk waaye jaboot rek yi fi jaboot te tamit moom rek laa am si doom buy jàng magam yi si des yan jàngu si te mu bëgg a mi lu ne ñu ngi ko siy daj waaw. waaw yow tamit lan nga wax soxna si. Ah, man damaa waaru sëñ bi wax dëgg yàlla dama la daan seetaan chaque jour ndax ñun moom weddiwuñu la sax ndax ñun ñii di wax ñëw fii tey ay lébu lañ ñun yoof gii lañ dëkk. te ku ne xam ne xam na rab am na jinne am na waaw ndax ñun xam nañ loolu waaye ñun affaire bi nag wax dëgg yàlla dafa jéggi dayoo ñun moom dañoo jaaxle fu ne dem nañ fa fu ne aw nañ fa wax dëgg yàlla waaye ba ñuy ñëw nii tey moom moo ñu doon wan yoon waaye bi mu xamee ne fii lañ jëm rek dafa fi taxu nar a ubbi oto bi rek man ma poñu ko téye ko maax yaayam waaye dafa naroon a génn dem waaye nag ñu ngi yàlla bi ñu yàlla indee fii sant nañ yàlla bu baax waaw di dellu nag ci suñu boroom te ne nag jaboot moom lu ne lay gis waaw. kon nag dégg ngeen loolu euh, parent yi wax nañ dëkkandoo yi wax nañ waaw léegi kon nee na <clears throat> fi ñu ko doon yóbbu moo ko gënal fii kaay nga ne fi ñu la doon yóbbu moo la gënal fii lu tax loolu. parce que kooku damay calmer mënalu dara. léegi fii nag fii nag. da ngaa soxor da bon. dama soxor dama bon. waaw. da xam. xam naa la bu baax. foo ma xamee. xanaa fii. fii fan. fii fu ma la xameewul. yow mi nga xamante ne ñun rek nga bañ. ñun jinne. yéen jinne. waaw. lu tax ma bañ leen. yéen jinney bon yi lu tax ma bañ leen. yaa ñu gën a bon yaa ñu gën a yées. mbokk yi ba tey ñoo ngi ci consultation bi dégg ngeen jinne bi wax na ne fii ñëw fii arrangé wu ko nee na man damaa bon waaye c'est normal parce que maak ñoom <clears throat> comme Iran Irak la way ah Iran Irak la maak ñoom noonu la jinney bon yi Iran Irak duñu mën a juboo tant que ñoom defuñu lu ma wax ma daal di juboo ak ñoom mais tant que defuñu lu mu wax lu ma wax maa moom ñaak ñoom du ñu mën a juboo moo tax foog ñu ne ma ku bon ki c'est normal waaw parce que maa ngi ñoom <laughs> euh, crise euh, médecine crise la rek du noonu waaw kon nag su ko defee ba tey ñoo ngi ci consultation bi ngeen dégg waajur yi wax nañ gis ngeen jinne bi dafa am doole gis ngeen ko xale bu ndaw la waaye gis nga ko dafa am doole parce que du moom li li nekk ci moom la gis nga ko léegi nag xale bi <clears throat> ba nga ko duggee yaa ko yàqal jàng n'est-ce pas yaa ko yàqal jàngam hmm? nga ne yaa ko yàqal njàngam ak lan nga ko yàqal maa ko yàqal li mu bëggoon lépp maa tax respecté wul yaayam maa yàq maa ko bu daan booleel ñu muy àndal ñëpp àndandoo yu bon yi ah, maa ko daan léttuloo mees di ko tentaloo boppam ah, waaw ak di ko àndandoo àndandoo yu bon waaw pour lan pour yàqu ko. moo ma neex. Mhm. léegi yow pare nga pour bàyyi ko walla. bàyyiwuma ko. Hmm? bàyyiwuma ko. bàyyiwoo ko. waaw. xam nga ne bu nekkee ne waxtaan naa ak ñoom ba ñu juboo xam nga ne yow di nga ko bàyyi force. bàyyiwuma ko. Hmm? bàyyiwuma ko. du xam nga ma. xam naa la bu baax yow da bon da yées. bu ma waxati damaa yées. eh bu ma laal bàyyi ko bàyyi Cheikh bu ma waxati damaa yées. yow nee nga ñun ngay defanteel. waaw ñun jinne ngay defanteel. waaw. Hmm. yéen laay defanteel waaw. yéen laay defanteel. hey yéen laay defanteel. di ko bàyyi wala doo ko bàyyi. bàyyiwuma ko. du xam nga ma. xam naa la bu baax. maa ñeme nga ma. ñeme naa la. Hmm. di ko bàyyi wala doo ko bàyyi. bàyyiwuma ko. Hmm. di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. du xam nga ci ki nga ñëw. du xam nga ma. Hmm? lu tax nga ne nañ la yóbbu fee ñu bañ la indi fii. du xam waaw parce que moo ma gën a ndaxte mënalu ma ndaxte kooku mënalu ma dara. sëriñ boobu mënalu dara mënalu ma dara. xanaa jàngal ma alxuraan bàyyi ma ma dem. da lay jàngal te bu ma dab xale bi bu demaatee école wala seen kër damay ñëwaat. ah da lay jàngal alxuraan bàyyi la nga dem <laughs> mbokk yi xam nga loolu laa doon wax fii barki démb. nee naa la jinne yi dañu doy waar am na jinne yi nga xamante ne boo leen jàngalee alxuraan defe naa isaa sax def na ci benn boo leen jàngalee ayatul kursiyu ñu jàngal la ayatul kursiyu wax naa ko fi waxati ko fi waaye suñu borom dafa wàccee la xalif général des jinne la roi médecine traditionnel le king of the king le roi des jinne waaw indi solution ci jinne yi ak ci rab yi defe naa ne jinne yi boo musloo ci ayatul kursi ak laxat jaakum ñoom it ñu muslu ci moo tax suñu borom wàccee ma may jëflante ak ñoom defe naa ne kii nee na ay lébu lañu xam nañu affaire jinne ak raab yàgg nañ ma suivre jinne bi ba ñu ko fi indi buggul woon ñëw ba mu egsee fii gis ngeen nu mu def xam ngeen ne fii jinne bu ne jaar na fi bu ne jaar na fi xam ngeen ne wax yi muy wax nii moom xam na ne ay wax kese la ndax lu mu bëgg da koy def force mu neex ko mu naqari ko parce que loolu suñu borom def la xalif général de jinne le roi médecine traditionnelle nee na fu mu daan dem dañ ko daan jàngal alxuraan rek suñu ko bàyyee mu mu ñëwaat dugg xale bi fii nag loolu amu fi fii dañu lay tuubal dugal la ci lislaam téye la fi nga nekk fi di liggéey loolu moo nekk fi maanaam rocci jinne bi ci nit ki génnee ko ci nit ki nit ki am jàmm ak salaam dégg ngeen ñu ne xale bi dafa mën a jàng dafa bëgg a jàng waaye jàngam dafa yàqu gis nga ko buggul toog ci néeg bi gis nga ko chaque minute moo ngi bëgg a dem parce que xam na ne fii fii moom safara ci moom la hmm? du xam ngeen loolu waaw <coughs> ñaata at nga am. man waaw. am cinquante deux ans. waaw. kon kii du mag xam nga jinne bi du mag xale bi ñaata at lay am. à peu près jinne bi am na cinquante deux ans maanaam du mag waaw kon xam naa ne comme ki fi ñëwoon fan yee rek xale bu jigéen boobu àndoon ak papam ñooy toll ah waaw gis ngeen kon nag euh, ngeen gis ne solution bi fii la nekk ci le khalife général des jinne le roi médecine traditionnelle du monde <clears throat> bàyyi ko no <laughs> moom kay c'est normal <laughs> c'est normal waaye fii moom du ñu jaaxal moom kay après ñu waxtaan rek ñu xool du noonu su ko defee bu soobee yàlla dina ko dina ko bàyyi loolu amul problème mhm. loolu moo amul benn problème parce que instant bi buggu fi toog waaw parce que instant bii nii xam na ne fii. ah. dégguma. fii mosoo fi ñëw. waaw duggee bi rek la fi taxu loo xam sax daf ma pa daf ma dóor sa kanam ah. la fi nag jël tànk bi di dóor bunt bi pour génn naan ah man xam naa fi ngeen may yóbbu man xam ni maîtriser naa fi ngeen may yóbbu waaw. dugg na sama zone sama territoire. Ah. dugg na le traitoire la xalif général des jinne ah. nee na lakkoon nga ka am na xale bu mu tudda ah, bu dëkk yoof nga paru bu dëkk yof nga paru boo ko ko laajee dina ko dina la ko wax. xale boobu. yaa yow yaa ko génne si xale bi. dégg ngeen ah. ban xale. asu. asu mooy kan. yow nga paru. Hmm. yow fa laa xanaa fii. fan yow. dégg ngeen xam na ma kon kay yow yow yow waroo ma yab. Hmm? boo ma xamee. Ah. Mm-hmm. lu tax. nga xam ne man ragaluma la bii yoon. dégg ngeen nee na bii yoon ragaluma il. mënuluma la dara mbokk yi gis ngeen day day semblant naan ragaluma laa ah? waaye <coughs> non ah kii mënuma napp kii mënuma napp jigéen la ah ndax avenir am yépp am rek dimbali ma loolu lay reebe am si man yërmande lool nag la muy doon xale soo waxee mu ne yaay dama ñaan yow comme ñun kenn jàngul man rek maay jàng say doom yaa naam dem ba tekki lu ne lay wax mbokk kon dégg ngeen loolu macha allah su ko defee rek bu ñu bu ñu waxtaanee rek jinne bi daal di koy bàyyi pare nga pour bàyyi ko. bàyyi hmm, ko. bàyyi hmm? loolu force la. loolu force la mu bàyyi ko force la mu neex ko mu bàyyi ko mu naqari ko da koy bàyyi loolu force la loolu moom force la amul sax demal ma ñëw. waaw ah, loolu moom force la <coughs> mbokk yi dégg loolu gis ngeen ko moo ngi kii ko wala doo ko bàyyi. di ko bàyyi wala doo ko bàyyi. du ma ko bàyyi. du ma ko bàyyi. di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. duma ko bàyyi. duma ko bàyyi. doo ko bàyyi. doo ko du ma ko bàyyi. doo ko bàyyi. di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. du ma ko bàyyi. <coughs> mbokk yi ba tey ñu ci science consultation bi duggaguñu ci faj bi ci science bi lañu nekk nii bu ñu kiiwee science bi ba pare faj bi moom bu ñu déggoowee rek jinne bi day génn force lii ci science consultation bi laa nekk ni waaw dégg ngeen jinne bi jinne bu dëgër bopp la. jinne bu doy waar la gis ngeen ko xale bi ku bëgg a jàng la mais jinne bi daf koy sonal daf ko yàqal di ko indil ay jafe-jafe ci douche bi la ko duggee ci toilette yi n'est-ce ci école bi ah nga ne li ma ko téye nii gis nga suma yaram bi lu muy laal yaramam bi moo koy sonal gis ma dinaa ko bàyyi teel nga dinaa <laughs> ko bàyyi. dinaa ko bàyyi. ko bàyyi wala ko bàyyi. dinaa ko bàyyi. <laughs> kon nag lii mooy consultation bi pare nañ ci fas consultation euh, léegi bu ñu waxtaan ak famille bi suñu jubóowee. bàyyi <laughs> waaw man pare naa sama consultation. <clears throat> léegi nag bu ñu waxtaanee ak famille bu ñu juboowee léegi léegi jinne bi génn jinne bi des fi ñoom ñu yóbbu seen doom maas kuura <laughs> waaw sama yaram bi lu mu ko laal nga ne sa yaram bu ma laal parce que yow waroo maa laal waroo ma laal xam naa ko parce que ñun rek ngay bañ a gis mu ne sama yaram bi mu ko laal bi ma ko laal baatin bi moo ko sonal mu ne da koy bàyyi xam nga sànq dafa waxoon du bàyyi léegi gis nga daw na kon man kii duma moroomam fii la roi xaaxaa jaar borom cent mille combat zéro défaite ci géej gi fii laa ko terrassé maa ko nax daan fii la lëg daaru mbay jaar maa ko nax daan fii fii la maam numburu yaataa jaar maa ko nax daan fii la macha allah mboose bu Kaolack jaar maa ko nax daan première ambassade Iblis fii la jaar deuxième troisième quatrième Mouhamadul Moustapha kon kuy jinne yu mag yi nekk Sénégal fii yëpp maa leen tënk fii ci sama kër loolu la yàlla dogal macha allah ak ñeneen ak ñeneen yi nga xamante ne munuma lim ndax jinne yi ma jàpp dafa bari ma lim fii la Jean la jaar maanaam jinne yu bari munuma lim munuma lim munuma lim ah. <laughs> loolu kay kii kay. sama téléphone damay toog di ko seetaan mas naa ko seetaan ndax nit ku nekk am na loo xam ne yàlla def na mu ne ci yow waaw te ku nekk xam na rab xam jinne mu ngi noonu ma koy seetaan benn benn bés ba daanu si sa ba yor sama téléphone ba daanu ci man waaw sama téléphone laa koy seetaan ba daanu yàlla rek moo ma tiim waaw ndax man mii dama am lu ma àndal waaw waaye nag yàlla mooy def loolu. waaw ma ne ko nag man sama soppe nga yàgg bëgg naa la yàggoon naa la bëgg a gis waaye man si tele laa la doon gis wala ma gis la si téléphone xëy na nag lii la yàlla doon xaar pour ma man la gis nii jaxran waaw macha allah ngay ko oyof nag wax dëgg yàlla ku oyof la ku baax waaw mu ngi noonu ndax nit am na fi lu ne te boo ñëwee bala nga koy gis nga sonn wax dëgg yàlla ko oyof la ko am yitte ñun moom nag wax dëgg yàlla sant nañ ko gërëm nañ ko te kontaan nañ yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla may ko ndam si li muy liggéey si barka yonante bi mu gën a yokk ba yëkk ba sentir si boppam loolu lañ koy ñaanal waaw. man yàgg naa ko suivre man nag yàlla dafa def jànguma français waaye yàgg naa ko suivre moom. yàgg naa ko suivre ndax damay dugg dangay dugg si TikTok sa gis ka dugg si internet bi gis ka fu ne ngay dugg gis ka waa loolu la yàlla dogal wax dëgg yàlla man moom dama koy léeg sa bu ma seetaanee tuuti sa damay bëgg arrêté ndax damay dem ba sama yaram bi sama picc yaram yi day taxaw ma bàyyi mu ngi noonu waa. sànq gis naa bi sëñ bi yoo xam dafa mel ne da nga xaw dama xam ndax man wax naa ko sëñ bi nee naa ko man dafa am lu ma àndal ñun nag yàlla dogal na yoof lañ dëkk ay lébu lañ man dooy laa santa waaw yoof gii lañ dëkk maam njare nag di suñu maam ndax ñun sëtu maam Jara lañ te yoof ku juddoo Philippe gii rek njare moo ñu njare moo la mar ñun nag njare moo ñu mar am nañ nag lu ñu àndal waaye nag yaa ma gën a xam waaw comme suñu doom ji loolu moo ko dal ñu ne nañ ñëw fii rek waaw ñu xool ba xam waaw waaye ñun moom ay doomi tuur lañ wax dëgg yàlla waaw sant nañ ko nag gërëm nañ ko yàlla baax na li mu wax nag dégg nañ ko bu ñu demee loo gis rek si biiru mbokk la xaj bu demee rek ñu waxtaan bu ñu waxtaanee bu ñu jibboo si kawi kàddu bu sooba yàlla dinañu gis léegi si kàttanu borom bi ndax yàlla mën na lu ëpp loolu te yàlla yàgg na jaamam waaw kay teg nañ lépp si loxoy suñu borom waaye kontaan nañ nag si moom kontaan nañ si yow torop wax dëgg yàlla waaw macha allah. si kàddoom yi rafet na ndeysaan moom it yàgg na ma suivre comme ni mu ko waxee lébu la xam nga lébu ñoom macha allah dañu bëri ay tuur ak yooyu te maam njare seen seen seen maam la. te xam nga njare sama taalibe la ndeysaan moo ma gis bëggal ma boppam ñëw jébbalu fii Cambérène maam njare defe naa ne loolu xam ngeen ko jinne yu mag yi maanaam kuy mag yi jinne yu mag yi nga xamante ne ñëpp ay ay maanaam ay kàngam lañu du ñu xeex ak man moom dañuy ñëw rek ah jébbalu parce que xam nañ yàlla man la fi teg macha allah kon nag euh, def nañ consultation ba pare defe naa ne xam nañ li ko dal te waxtaan naa ak parents yi wax naa leen prix nag léegi ñoom dañuy dem waxtaan ak famille bi après su ñu ñëwee incha allah dinañ leen jàppale nañ leen wàññil tamit parce que mbirum jinne tamit dafa garaaw xam nga affaire jinne dafa doy waar munoo ku ñëw rek nga dimbali ko rek mu dem loolu baaxul dama yor ay njaboot aussi yor ay ay njaboot te ak yooyu xam nga ah dafa am loo bëgg a waaw ah nii nii bëggoo ñu filmer waat la sànq filmer nañ la de nest waaw. ka day naan. dèjà jinne ni nga yoree nit yor dépense am jinne tamit noonu nga yore dépense am fayal téléphone bi léegi dem leen ngeen waxtaan seen famille nga ñaan dimbal aussi nit ñi mun nañ la dimbali parce que noonu la fii nit ñëw na fii a yorul dara doomam daanu mu dem dëbb-dëbbal yàlla jàppale leen ñu am parce que aduna noonu la yàlla mën na la dimbali xëy na yàlla mi la indi fii <laughs> mun na la jàppale waaw wan na la yoon bi dèjà kon yow am amatoo feneen fo waaw waaw léegi nag euh, su ko defee waaw léegi xaaral ma tëj bu ko defee après yéen ngeen dem lijjanti ji parce que ñun tamit du ñu mën a ko faj te joxewul xaalis parce que affaire rab la affaire jinne la mbirum jinné du da ngay faj noonu nit ki rek ñun dañu yor ay njaboot ñu nit du noonu léegi nag lu ñu mën a def def nañ consultation xool nañ xam nañ carrément li ko dal lan la te li ko dal mën na dañ fii léegi nag dem góor góorlu rek kii jël na décision dimbali la xëy na boo amee ñeneen bon volontaire dinañ la jàppale su ko defee ñun tamit ñu wàññi du noonu waaw noonu la rek ñun tamit dinañ ci jàpp waaye ndimbal day fekk loxoy borom du noonu kon nag mbokk yi loolu moo nekkoon mbir mi def nañ consultation xam nañ li ko daal wax nañ leen prix léegi ñoom ñoo ngi dellu ñu xool buur ñu delloo xool bu ñu waxtaanee seeni biir après ñu xool niñ leen di dimbale du noonu kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm du noonu ah.